di leen gërëm di sant population Tambacounda région bi yëpp mais nag beral ci loxo population Bundu ñoom ñi nga xam ni depuis ay jours ñoom ñoo accueillir dans de bonnes conditions suñu unité yi bokk ci manœuvre bi ñu ngi sant aussi autorité administrative yi fi ne di gouverneur préfet yi di sant les autorités coutumières religieuses di sant aussi les élus locaux ñoom ñëpp ñoo ñu jàppale pour que manœuvre bi déroulé wu dans les meilleures conditions possibles di sant également unité yi nga xam ni ñoom ñëpp participé nañu ci manœuvre bi comme ni ngeen ko xamee ay junni lañu ay téeméer yoo xam ni waa gendarmerie lañu ay téeméer yoo xam ni waa police ak ay fukk yu bari yoo xam ni waa eaux et lañu di leen félicité nag en même temps ci seen engagement. ak performance yi nga xam ni am nañ ko ci manœuvre yi comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan xam ngeen ni suñu sous-région fi mu ne nii dafa jànkantoog ak ay jafe-jafe yoo xam ni ci plan sécuritaire yoo xam ni pour que ñu mën koo euh, euh, régler il faut que ñu anticiper il faut que ñu nekk dans la activité mais anticipation mooy da ngay planifier anticipation mooy da ngay def ay exercices anticipation mooy da ngay def ay manœuvres looloo tax nag comme ñun xam nañu ne dañoo war a anticiper police gendarmerie armée de manière régulière dañuy organiser ay exercice ak ay manœuvres su ngeen fàttali ko 2018 organiser nañu manœuvre bi ñuy wax manœuvre Saloum ren ji ñu organiser manœuvre Falémé manœuvre nag li nga xam ni mën na la ko indil bari na mais dama ciy lim yi quelque rek benn bi mooy. manœuvre daf lay dimbale nga teste nga tester éprouver capacité yi nga am avion yi nga am ndax am nañu performance bi nga xaar ci ñoom armes yi nga am ndax am nañu performance yi ngay xaar ci ñoom ak rajo yeeg lépp lépp lépp ak nit ñi même ndax performance yi ngay xaar ci ñoom ndax am nañ ko ndax capacité yi am nañ ko mais manœuvre aussi day permettre ñu teste ba pare consolider suñu aptitude à travailler ensemble moom la ñuy wax interopérabilité parce que benn réew la ñu nekk suñu sécurité ñun ñëpp la soxal dañoo war a jàng nan la ñuy liggéeyee ensemble wala ñoo xaar ba jafe-jafe am ñuy seeg jàng ñu ñuy liggéey ensemble loolu c'est très important xool jafe-jafe yi rectifier ko avant que muy trop tard voilà interopérabilité bi war na am ci ay services soo jëlee armée de terre rek dafa bari ay armes yu ci ne armes yooyu dañu war a interopérable soo jëlee aussi forces armées muy armée ak gendarmerie dañu war a interopérable nga jël force de défense et de sécurité yëpp dañu war a interopérable donc loolu mooy deuxième objectif bi nga xam ni moom la ñuy viser ci manœuvre beneen objectif bi aussi mooy que manœuvre day permettre nga dominer terrain bi parce que doo xaar ba situation bi euh, compliquée ngay soog a jóg manœuvre daf lay permettre nga xam terrain bi xam ruq-ruqaat yëpp xam jafe-jafe yi pour que yàlla tere bis bu jafe-jafe amee nga mën a xam lan ngay def mais manœuvre également dafay tax nga dalal xelu population yi pour ñu xam ne yéen kat toogul leen rek di nelaw yéen a ngi préparé wu pour que ëllëg su ko bi laajee di ngeen mën a taxaw taxawaay bi war mais aussi manœuvre dafay permettre ngeen interagir ak population yi sensibiliser leen ci rôle bi nga xam ni ñoom war nañ ko jouer ci seen sécurité suñu gisee loo xam ni dalal tey na seen xel kan lañ war a waxal loolu yëpp mais bari na sax yeneen euh, avantage yoo xam ni manœuvre da koy joxe mais nag ñeent yooyu laa ni woon dinaa ko partager ak yéen et aussi vraiment vous rappeler que médias yi aussi am ngeen rôle bu am importance bu ngeen war a jouer ci sécurité suñu réew mooy di faire passer le bon message mooy di contribuer di renforcer li ñuy wax relation civilo-militaire ndax ñun ñi sol uniforme ak ñi solul uniforme su fekkee déggoonte wuñu pour que sécurité am day jafe te boobu yéen ñii yéen a nekk au premier plan pour jouer ko voilà maa ngi leen di sant di leen gërëm